بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mbokki jullit and followers of Eco TV International di la wax ne dalaatu another episode of waxtaane islam programme boo xam dañ leen ko andel fi di a jàppale suñ diineem islam bi di ñu helal di helatal xelaatal yobu ñu a delu si suñu borom Ah, di jàngal suñu diine bi programme bi dafa nekk loo xam ne dafa am solo trop ah, di wax ñi ñi ne ñe try di follow Eco TV International waxtaani islam si programme bi because ah, dafa nekk loo xam ne it's a very vital and important to human life because ñu ñu jànga suñ diinum islam bi wala bala wax bi du bari di bàyyi suma guest bi oustaz Souleymane Diallo mu nuyu wante ak askan bi yaa oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Mariama nuyu neen leen waat beneen yoon si Eco TV International di ñëwaat fii beneen yoon di omaat beneen programme boo xam ne wala beneen épisode boo xam ne ñu koy defaat nga xam ne lépp soxal na réew mi soxal na àdduna bi ndaxte yàlla moo ñu ko sant ba tey di nuyu waa Eco TV international di nuyu suñ waajur yi bu baax a baax nga xam ne saa yu nekk rek ñu si suñ gannaaw di ñu teete di ñu wan yoon di nuyu waa liggéeykat yi yëpp di nuyu bu baax a baax si suba teel bi ak képp koo xam ne yam ñuy déglu ak yaa ngi follow up programme bi ndaxte lépp soxal rek lu dul diine jëm kanam lu dul ñu defaru ci kanam yàlla bala ñee dem di àgg foofu noonu di sëgg ndaxte kenn bëggut keroog yow ma la xiyaam ñun ñëpp ñu taxaw ñuy sëgg ndaxte sëgg boobu noonu si boppam am na lu mooy firndeel waaye bala ñuy àgg di siggi di di sëgg foofu noonu di am gàcce yaakaar naa ne war nañu mën a xamaat suñ diina lu ñu sant ak lu ñu tere kon su boobaa incha allahu dinañ bàyyi Mariama moo asi li nga xam ne tey moom la asi tey incha allahu taala rabbi. comme nañ iya iya ko min di ko defee rek bala ñu dugg si waxtaan bi di sant suñu borom di ko gëré mo ñu may fan bi ma ñu kattan bi may ñu wër bu yaram bi ko ñu mëna ñoo toka fi ci si tala bi di aw waxtaan ak ci bokki julliti di julli ci yonente bi muhammad salallahu alayhi wa sallam di sant suma ñaari wajur yi suma wajur bu gol bi dellu si boromam di ko ñaanal yal nako yalla yàlla aljana suuf bi sel si kewam te jikal ko bàkkaarami ak képp julli bu delu si seen borom suma wajur bu jigeen bi di ko ñaanal yalla may ko fat bu guda yalla yàlla may ko wér gu yaram yàlla may ko mujj bu rafet yàlla jàppale ko si yóbbuñ jobootee asuma jëkkër tamit saa yu nekk di ko gërëm di ko sant parce que dama kontaan si moom abeg si moom di sant yàlla si jëkkër bu ma may di ko ñaanal saa yu nekk yàlla may ko fan bu gudda yàlla may ko wér gu yaram yàlla may ko mujj bu rafet yàlla jàppale ko yo ñu nekk si ronam yàlla jàppale ko yóbbuñ jo yóbbuñ jobootee mu yomba si moom yàlla jàppale ko si liggéeyam bi yàlla barkeel ko incha allahu rabi ak njoboot yi nekk si kër gi tamit di leen ñaanal bu baax ya la arden ya la sutura la ya la barke boo jobote a julit inshallah rabbi a ah, di asma usta guest bi di usta suleiman jallo di ko gerem bu baha baha di ko santa usta ah, oh, never hesitate to come to echo TV International be suba bi sax oustaz ah, studio bi pour ñu mëna am waxtaan di ñaan yalla yalla may ko fan bu gudda yalla may ko wér bu yaram yalla may ko katan bu mo defé liggéeyam bi parce que te liggéey bi dafa am solo torop si doomi aadama yi yàlla la bu baha baax yàlla ah, sutura la sutura njabooti yara aarta aar njabooti ah, njaboot ah, waajuri nekk si kër gi yàlla may leen fan bu gudda yàlla jàppale leen yàlla jàppa jàppale ñu yàlla aar ñu yàlla sutura ñu képp julliti muslim yan nañu yàlla jàppale ñu leen di nuyu si ajuma bi yan nañu fekkee ajuma yee bari bari bari insha allahu rabbi Euh, ñu duggaat si waxtaan bi suñ topic of discussion tey mooy nekk maas yi maas yi and the local language ñu ne ko yërmande te yërmande la ñu waxtaanee incha allahu rabbi dina ñu wax lan la suñu borom sant liñ si alquran bi si yërmande lan la suñu borom wax si yërmande incha allahu rabbi dinaa jox flow bi yaa oustaz mu wax ñu first of all lan moo nekk yërmande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 moo ñu ñaanal xéewal ak mucc ak barke tawfiix ñuy ñëw si toppi bu nga xam ne moom nga laajte tey muy maasi maasi suñ ko waxee si arab mooy lan ar rahma rahma mooy yërmande yërmande si boppam jikko la wala melo la si melo yu nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala moo nekk ci moom melo ab jikkola bu nga xam ne yàlla moom moo ko amee di ko wàcce si ko àdduna bi fii nii melo jikko bu nga xam ne la borom bi moo koy jël dugal ko si ruuxu doomu aadama su ko defee muy dund ak moom waaye melo jikko la bu nga xam ne yàlla moo ko jël tasaare ko si bépp koo xam ne yaa ngi si ko àdduna bi fii nii seetu si christian nga seetu si na jullit nga ndaxte moom moo wax ne inna rahmati waasia wala inna rahmatallahi waasia moom moo ko wax moo ne suma yërmande dafa yaatu dafa tasaaroo kon yërmande suñ ko waxee mooy lu nga xam ne borom bi moo ñu ko wàcceel ba pare mu seddi ñu ko te si sedd boobu noonu teguñu si dara loolu moo nekk yërmande incha allah taala. ah jërëjëf ah, oustaz si tontu bu leer boobu tontu leer na yërmande si alquranul karim bi la nekk suñu ah, borom. moo ko moo ñu ko sant daal ah, yërmande dafa nekk loo xam ne dañu war a try ñu build ko in ourselves and you have ah, ñu waxee ah, yërmande na yërmande nit ku am yërmande ak yërmande procédure bi nu moo demee nit ku am yërmande naka la moo mel ak ku amal yërmande si boromam doomi aadama jërëjëf Mariama si laajte boobu noonu waaye bala maa ñëw foofu noonu si kaw laay commencé mm-hmm. yërmande su bopp si borom si boppam suñu borom moom moo jël yërmande ndaxte am na téeméeri yërmande yoo xam ne ñu ngi si moom si biir téeméeri yooyu noonu benn la jël mu wàcc ko si àdduna mu seddale ko ñépp ñëpp 99 yu des mu ko téye ca kaw ndaxte biir 99 yu noonu si lañ bu ñu àggee yomal xiyam keroog si lañ ko jël seddale ko si jullit yi ak képp koo xamante ne gëmoon nga ko waaye benn bu mu wàccee si kaw àdduna bi benn boo noonu la ñu tasaare suñ seetee tamit yërmande si boppam dafa tasaaroo si quraan bi lu mu si lu mu lu wàcce si quraan bi si turi yërmande si boppam mun na 267 ou 268 yooyu noonu yëpp ñu fa ba tey suñ continuer si yërmande boobu noonu dinañ gis ne fépp foo xam ne jullit bi mu ngi koy commencé si yërmande yàlla la mooy commencé fan la si bismillahi rahmaani rahim benn saar rek moo ko amul moo ne ko suratu tawba waaye saar yuy des yépp am nañ bismillahi rahmaani rahim kon dina gis ne yërmande foofu noonu si yàlla la njëkki bala mu koy wàcce si doomu adama waaye bala mu koy jox ak doomu aadama si boppam daf ko njëkk a su suñu yonente bi sallallahu alayhi wa léegi si biir yërmande boobu noonu moom la jël nag mi ne yërmande bii dinaa ko jël ma jox ko suma jullit ñu séddoo ko dinaa ko jox ñu nga xam ne nekkuñ jullit ñu séddoo ko léegi bu ñu ko seddoo ba pare mu jël ko jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko joxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi lu mu wax si xadisam bi mi ne man laa yarxamu naasu laa yarxamuhu llaahu képp koo xam ne du yërëm nit yàlla du ko yërëm kon ñun doomu aadama war na kenn ku nekk suñ borom num la yërëmee nga yërëmee ko sa moroomi doomu aadama ndaxte dafa yaatu ci biir yërmande façon bu nekk lay ñëwee ndaxte amul ci benn kese rek tey su ma la gisee ngay sonn walla nga téye bagage bu diis ngay dem ak moom war naa mun a am xoli yërmande ak xelaat ne su nekkoon ne man la naka la mooy mel nga dem dimbali ko ku noonu si bagage yu diis yu mu amee noonu ndaxte loolu noonu si boppam si yërmande si la bokk war na si jullit bi saa yu nekk muy gëstu morom ki ci lum nekk lal la bu nekkee lu baax la mu fexe waxtaan ak moom mu gën koo ñaax bu nekkee lu nga xam ne safaan la mu fexe ban stratégie la mooy teg mu génne ko si loolu ndaxte kat moom gis na ne am na yàlla loo xam ne wax na ko ba pare kii jaaru si am nga xoli yërmande boobu noonu te bañ nga bu si nekkee dina si am mbugal mbaa dina si am bàkkaar nga am xoli yërmande boobu noonu taraay nga génne ko si yaa ngi gis noonu la nekk di demee ndaxte dafa am benn bés benn taalibe ak sëriñam ah. taalibe bi dem bay waaj faatu mu am benn dénkaane yu mu dénkaane woon si ñu nga xam ne ñoo ko doon sàng ñoo ko doon sàng mi ne leen ne su ma faatu suma sëriñ bu ma jullee yaa ñu ne ko loolu nga dénkaane mi ne waaw mi ne la baax na amul problème insha allahu dina ko jotee la sa sëriñ yaa ñu ne waaye lu tax nga wax loolu noonu mi ne man mosumaa gis su ma sëriñ fu mu amee xol yërmande dafa soxor ba pare day fay wante te du bàyyi dara butul bu ndaw sax boo ko amal sax di ko ko fay bàyyi foos maanaam amul xooli yërmande mu nga xam ne day mun a yërëm mbokki jullitam xale bi bu ñu demee ba di ko waaj julli ñu wax ko sëriñ bi ba mu ko waxee sëriñ bi rek sëriñ bi dellu gannaaw ne bis ni ki tey dinaa bàyyi lépp sox loo xam ne soxor la woon ma delluwaat su suñu boroom fas yéene iya wàll defaral xol bi ba mu mhm. baax iya tuubaa si yàlla ndaxte na lu wax nak lu am ful la xale bi yeyna serigne bi si lu nga xamne taxawut ak mom gisante wut ak mom mhm. si ay nit la ko jaarale muy nek lu simple mhm. xeyna bu taxawon jakarlo mo wax ko xex am way lan si yoon la ko jaarale so su ko defé nak yermande bobu non nga xamne sun borom mom moko ko bam ñu ko séddale ñun doomi aadama yépp war nañee mën a am xol bu nga xam ne xol bu oyof la mooy doon ndaxte si biir xol bu oyof si ngay defee loo loo loo bëgg a def ndaxte sa xol bi bu oyofut bu munta jàpp sa xol bi bu munta muñ munta bàyyi dara loolu noonu ku amul yërmande doo ko mun a def ndaxte daf si am xol yoo xam ne dañ am lan ay gaañu gaañu ci biir soo gaañu gaañu yooyu noonu fekk demuñ ba faj ko ba mu wér xooli yërmande du am si ñun ndaxte am na ñoo xam ne seen xool yi comme xeer kenn ku nekk nag ak na ko yàlla bindee ndaxte moom moo xam nu mu bindee doomu adama yi waaye kenn ku nekk dafa war a taraay at least bu nee benn pepp bu ndaw la ci yërmande mu nekk ci sa xol naka suñ borom fu mu waxee ne. koo xamne ne am nga ben pep bo xamne ne iman la bu ndaw bu nek sa xol bi dinaa la duga àjjana kon naka yermande nak nga xamne ñun ñëpp and ñoom ñëpp ben tiim bi ndax ndaxte yalla si turam bi si boppam ar-rahman mu fa ar-rahim mu fa te rahman boobu non la wacce ci ko aduna rahim bi mom mu ko ti wa di ngi gis ñun so su ko defé nak fofu non ñun tamit fofu lañ wara jangé ne suñu borom kat boo gisee mu defal ñu lii pour ñëpp ñu dëkk ci jàmm ndaxte yërmande bu amutee jàmm du am suñ buggee jàmm am nag faaw kenn ku nekk di yërëm morom ki ñuy bàyyante xel ñu si kaw ñuy bàyyi xel ñu ci suuf waaye bu nekkee ñu si kaw dañ fàtte ñu ci suuf amuñ xool yërmande si ñoom ba tey ñu nekk ci suuf dañuy dañuy continuer di mer ñu si suuf moom ñu si kaw dañuy def lu ñuy def rek su ko defee boobu nag juboo du yomb juboo du yomb te suñu buggee juboo yomb kenn ku nekk faaw muy yërëm moroom ki loolu laa lay tontu sa question boobu nag incha allah. Ah, comme num ko waxee dégg naa xadis ah, bu mu jàngas bu suñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax si. yërmande kon nag yërmande dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop ak uh, the names of Allah in the 99 names of Allah uh, dégg nañ fa Rahman dégg nañ fa Rahim te loolu yëpp mu ngi firi am uh, marché mu nekk yërmande kon yërmande dafa nekk loo xam ne dafa commencé from the top of the ladder mooy suñu borom ñëw si suñu yonente bi and then pass through us kon dafa nekkal loo xam ne dafa am solo torop si doomi aadama dañ war a try ñu am am maas yi amoon each other di yërëmante di jàppale wante parce que si jàppale wante tamit si yërëmante la bokk boo mhm. yërëmut sa borom doo ko boo yërëmante wut doo jàppale ko xam ne ah, danga ko fekk mu ngi si difficulté nga ñëw di ko jàppale xam nga kooku danga ko amal yërëmande moo moo la si diggal waaye léegi oustaz yërëmande ma lan mooy njëriñu yërmande di importance of our mercy jërëjëf yonent bi daf ne man laa yar yarxam laa yurxam man laa yatub man laa yat man laa yatab laa yutab koo xam ne du dee yërëm du dee yërëm nit duñ la yërëm te koo xam ne tuubuloo duñ la tuubal yërmande si boppam important la ndaxte nit ki fekk mu ngi am xoli yërmande yàlla mu ngi wàcce yërmande si moom comme yonent bi nu mu ko waxee si benn xadis ne fekk ay nit ñu ngi toog ñu ngi jàng alxuraan si benn néeg ñu ngi koy jàngalante di ko firwante mu yalla dina wacce ci ñom ay dal manam dal bu nga xam ne seen xole dafay dal mind si ci lool non way lan sun borom dina len tag, si ay mbolo di wane ni ñi kat sa yu si suma mbir rek lañuy waxtani kon niki nun, nun la yermande mel kenn ku nekk mu ngi am xol yërmande si boppam yàlla dafay jël yërmandem si boppam di la ko yokkal yow ba keroog bi si yomal xiyam waaye bala ñuy àgg yomal xiyam sa sa bàmmeel bi sa si boppam nga xam ne torox tànge waroon na la faa fekk yàlla dina wàcce yërmande si yow si ku nga xam ne mi ngi yërëm morom doomu adama ndaxte boo seetee nit su gaañu suñ koy dugal si bàmmeel dañ naan nañ am xol yërmande ñu suul ko ndànk di defar bàmmeel bi ndànk ñu dugal ko ndànk suuf ko ndànk wàcce su suuf bi si koom ndànk te suñ koy suul dangay gis ñu jël ay xob bant teglante ko nii si koom ñu ne lan ñu ne pour yërmande yàlla wàcce si koom ngir loolu suuf bi mu wàcc si koom ndaxte kenn kenn ku nekk xam na ne suuf diisaayam bi nu mu toll yow mu koy suul di nga am xoli yërmande waaye moom mu nekk si biir yëg na diisaayu suuf bi naka la toll mm-hmm. kon yërmande si boppam loolu la mooy moy mooy ndax te nit ki no gëna amé yermande ci nit ki rek yalla jël yermandem yokk ko ci yow duñ em foofu noonu waaye dinañ ko gëna mu continuer so sété sey buñ koy tak, mm-hmm. su ñey tak goor ak jigen mm-hmm. pour ñu pour mu dagal leen ñoom ñaar si seen bir waxtaan wala si bir waxtaan ñuy tak mm-hmm. di nga dégg ñu wax goor gi ne amal yermande si jabar ji ñu wax goor gi jigen gi na topatol sa borom kër yermande bu ñee wax goor gi nun dafa am lu may tekki bul ko sonna bul ko khas bul ko saga sutural ko bul ko toroxal si moromam deng lu nga ko sey dimbal mm-hmm. bu ngeen deme ba am problème waxtaan leen ko yéene neen seen biir te bul nangu ayib jaar seen diggante loolu si boppam yërmande fekk amut si loolu noonu te si yërmande daf si bokk yërmande bu si bokkul rek du neex cofeel bu waroon am seen diggante dafay wàññeeku nit ki noonu ku amee doomam di nampal bu ti yërmande yu ngi koy xool dangay gis mu koy toppatoo di ko teete di ko def la lu ne ngir lan am na yërmande si moom diggante yaay ak doom papa ak njaboot yi kenn ku nekk dafa war a am yërmande si ñoom xale yi dañ war a am yërmande si seen yaay ak si seen papa yi ngir lan sonn nañ si seen sonn nañ seen kaw lool ndaxte fu ñu commencé ba bu ñuy doxee dañ sonnoon seen biir lool kon ñoom tamit war nañee mun a am xoli yërmande ñuy fexe di yërëm seen papay di yërëm seen yaay ci wax ju bari ji ci tooñ yi ci saagay ak ci colin bi ak nu munta mel ñuy fexe di yërëm lan waajur ci kaw loolu noonu ndaxte lan waajur gis na loo xam ne moom bam ca tolloo woon gis na si ay problème yu dul jeex léegi yow mu juddu yow dafay fexe yow pour bul jaar si problème yooyu noonu ndaxte boo si jaaree rek tolof tolof tolofam laay asin problème bu du jeex la laay asin ngir lan xam na ne lii soo si duggee di nga si am problème xëy na jaar na si ndaxte am na xale yoo xam ne seen yaay fu mu amee kiris wala fu mu amee xaar attaque ñoom ñëw koo def ndaxte dañ leen di aaye ñu bañ am na ñoo xam ne ñoo reylu seen yaay ñeneen si seen papay ngir lan amuñ si ñoom yërmande yow xam nga ne sa yaay dafa feebar saa yu feebaree feebar nangam mu ko day laal te su ko attaqué daf di mitt ngeen di jënd ay garab di yóbbu ay labitaan di dem fu ne di dem ay sëriñ te lu noonu yëpp kenn tegul ko ko yow doom te yow sa yaay bu mu la doon téyee di la contrôle dafa amoon xoli yërmande si yow ba dara dara dara du nangu dara laal la kon yow bu nga demee ba nekk mag war ngaa mun a am xoli yërmande ba yërëm ko ba lépp lu mu la wax nga sant ko nga def ko ndaxte ku yërëmut sa yaay faale ko respect wuloo ko ngay ñëw di nga soxla ku la yërëm ku la faale ku doo ko am xale yi nañ di fexe yërëm suñu yaay ñuy fexe yërëm suñu papañ ak ñu ñuy wax yépp ñun ñoo si am ba tey ay xale lañ ak nit ki loo doon doon doon mag amal yërmande si waajur ndaxte dafa foon gannaaw bu nga xamutee kenn yàlla ñoom la la dénk kon nag nañ di fexe am yërmande si ñoom ñu leen di toppatoo ñu leen di bàyyi loo xel bu baax buñ fexe benn stress ñu teg leen ko fexe loo xam ne lii daay naqari sa yaay bul ko ko def te boo ko si defee di nga si gis loo xam ne du la si neex génn si bam set wecc ndaxte yàlla su borom moo wax ne moom moom moo amee yërmande te si yërmandeem si la ñëpp xëcc kon nañ fexe ñun tamit yërmande bu nga xam ne moo war a dox suñu diggante suñu waajur yi ñu def ko su ko defee ñun tamit ñu xëcc si yërmande yàlla bi suñ ko defutee rek yàlla def ñu see génni ñu fexe góorgóorlu si loolu bu baax incha allah taala. ah, ah jërëjëf Aya Oustaz si tontu bu leer boobu ay yërmande dafa nekk loo xam ne dafa am solo trop nañ try by all means and uh, build the culture of mercy into our system yërmande boo amala nit yërmande keneen tamit dina la amal yërmande a day that you need it comme Oustaz ni mu ko waxee soo yërëmut sa waajur bés dina ñëw di nga bugg a nit yërëm la te doo ko am. bu dut sa waajur sax boo amut yërmande among the society among the people that you live with bés dina ñëw nga génn si society boobu nga dem si beneen society nga soxla foofu pour ñu ñu yërëm la duñ la yërëm parce que li nga ji amoo sax. lu nga góob. Uh-huh. lu nga ji loolu ngay góob. waaw waaw loolu la what you uh, what you uh, xaw ma is what you harvest. kon nag uh, dañu war a try by all means ñuy try. di am a good attitude and a good behavior towards each other parce que yëpp si maas yi la bokk yëpp si yërëmande la bokk ku yër ku am yërëmande muy dafay yërëm am am mbokki doomi aadama bi waaw boo amut yërëmande te amoo xol bu rafet te dafa yërëmande dafa boo dafa ànd ak ak. Ah, bu rafet ba xol bi su baaxut xol bi rafetut rek doo mën a am. yërëmande si keneen kon ah, yërëmande dafa nekk loo xam ne nañ war a travail on ñun sax and inculcate to our system. Hmm. Ah, oustaz Aw su fekkee ne dafa am loo xam ne dañ ko bàyyi si gannaaw si affaire yërmande nga ngeen ñu koo yaatal. gis nga yërmande bu ngay wax noonu. Mhm. suñu borom sa amele ko si nit yi de. Mhm. maanaam si atta si rab sax. Mhm. wàcce na leen ko. boo amee jur. moo xam ne xar la. walla béy la wala nag la wala ganaar ak lu mu mënta doon. nga am yërmande si moom. ndaxte lan la yow bakken nga téye yow bakken bu nga téye noonu war nga am yërmande dafa war a lekk mm-hmm. dafa war a naan dafa war a tëdd fu correct mm-hmm. waaye nit ñi defatuñ loolu mm-hmm. ñu bëri maanaam dañuy jël juri rek dem liggéey loo leen ñoo teg leen lekk bu correct sax duñ ko am naan bu correct sax duñ ko am ana loolu noonu ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa benn bés dafa génnoon rek muy dem si boori àll bi nii mu gis benn gëlëm gëlëm baa ngi ràpp xiif mar sonn boobu ga te gër borom gërëm bi si waa ansaar si la bokk yonte bi dem ba si gëlëm bi mu xool mu gis gëlëm bi nu mu koy xoole mu xam ne boobu gëlëm bi sonn na lool si la jël loxoom raay ko si gëlëm bi nii mu dem utal ko lu mu ko lekk jox ko gëlëm bi lekk ba suur sawar si la yonent bi laaj ana kan moomu gëlëm bi xale bi na ko man la mu ne ko gëlëm bi yow ak gëlëm bi yëpp suñu borom moo leen moom yàllaa jël gëlëm bi dénk la ko kon fexeel ngay toppatoo gëlëm bi xale bi si la commencé di toppatoo gëlëm ba gëlëm bi nu mooy feese waate ponkalaat kon ñun tamit ñu nga xam ne ñun ñoo amee jur gi dañ di fexe toppatoo jur gi bu baax ndaxte fii lépp loo xam ne def nañ ko fii suñu borom incha allah euh, euh, fële na keroog yombal xam dinañ ñu ko laaj. kon jur yi nañ am yërmande si ñoom boo takkee sa fas mbaa sa mbaam nga sëf ko ba mu diis. si ay bagages. yow bagages ak nu mu toll noonu nga jël et wala yar bu saf nga ko koy dóor ngeen ne da nga bëgg sa liggéey gaaw waaye dem su dee woon nag ndax sa liggéey du taxaw fan ngaa jëlatee xaalis boo dem jëndatee mbaam wala fas. té su ko nga xamné mom mo moo acide asil dépasse moo laa asil lepp war nga mëna am xol mande ci mom mbam wala fas su sañol loko ép mu daw asil loko, ko si way da ngay jël sa mbam bi ép ko bam mu yalla yàlla yaramam bi toj té fu mu toj non ét bu diis ngay jël du ko dóor an so xol ko def ritalé fi ni bo zone mu ép mbam japp mbam bi di dor ni ñi nan ko sa mbam bi mu japp mbam bi di dor ñi nan ko sa mbam bi mu japp mbam bi di dor las dor bu nga ko mujjee dóor dafa ndoo dor mbam bi tëdd dimbalé dimbalewul ko ndaxte boobu lan la waxon nañ ko ko ndaxte dafa dor mbam bi ba mbam bi nàcc terewul mi ngi dor nan mbam bi dafa nangam mbam bi dafa nangam est-ce que mbaam bi su jëlën et dor lako ko nu moy mel ci yow dañ war di xalaat loolu noonu dañ war di xalaat la yermande bobu noonu soo seetee suñ sëriñ xaadimu rasul sëriñ Touba fu mu jaara Touba bi metti na lool mm-hmm. bu ko neexoon mu rey Touba bi yépp problème bi anytime mu nga Sénégal mm-hmm. waaye deful loolu noonu mm-hmm. gaay di yàq gaay di yàq ba agsi si sëriñ bi yàlla yónni Jibril mi ne ko waxal serigne bi lu wax ma def ko waxal rek legui legui bo fekk gars amna am buñ doon jang mi ne ko serigne bi lu wax rek lol lañuy def bu ne ñu ray ñep ñu ray ñep bu dee ñu alagal ñep ñu alagal ñep mi ne irham jami al wara yaa hadiyan rada yow yalla yërëmal mbollem kep ko xamne mu ngi doon yak fi yërëmal gaa yeb bu mu leen ba pare tubaab bi dañ toolaat xam ne ni kii nii mënuñ si moom dara kii nitu yàlla la tubaab bi nekkuñ di ñëw tubaab di siyaare mm-hmm. nekkuñ di ñëw tubaab di di seeti sëriñ su màggal jotee dañuy ñëw waaye su doxee noonu neneen kon du ñëw ndax dara la yàlla moo jël xoli yërmande bu si boppam def ko si biir sëriñ bi anada su doon na keneen la nag dafay xeex mm-hmm. waaye xam na ne yërmande yàlla moo ëpp lépp te si biir yërmande yalla ci la ñëpp xëj yalla kum yërëmul rek di nga torox mba nga son kon su ko defee si biir yërmande bobu noonu ñun ñëpp nañ fexé kenn ku nekk mu jël xolam duggal ci si yërmande ñu bay soxarante bi mm-hmm. ñu bay iñaanante bi ñu bay liggéeyante bu nga xam mi ngay daw ni ngi fokon nañ na liggéeyante jeexna na ndeke ba léegi mi ngay am nañ bàyyi julliti kenn ku nekk mu doxee na ko neex nañ bàyyi kenn ku nekk mu nekk si wér gu yaramam ku yàlla jox taraanga nañ ko ko santal ñu gërëmal ko ko te bañ ko koo xañ ku yàlla may ay man-man nañ ko ko bàyyee te santale ko ba pare di ko si ñaax waaye ku nga xam ne mi ngay def safaan kooku lañ war a waxal waaye léegi defatuñ lolu non kuy def safan koku lañuy ñuy kuy def lu bax ñu lay délo gannaaw ana kay lañuy ag té ñun ñëpp suñu borom mu ñuy taxaw duñu xaar ku xamu sa ëllëg fexeel prépare sa ëlëk comme ko sa ëlë nak la moy mel fexel sa tay mu rafet agge ëlëk si kanam yalla nga mëna xol ndax yalla bu démé ba yomal xiyam min ana ñu nga xam ñun ñoo daan rafetal ana ñu nga xam ne ñoo amoon xoli yërmande kaay leen taxaw boor bi yàlla jël benn lan lifin ni ñu ko dawaate sax benn kiiraay tegal leen ko naaj du leen laal dara du leen jot moom moo wax ne inna rahmati yu wasiat mu waxaat ne ba ma defaree asamaan ak suuf ba ma defaree lépp ba pare su ma yërmande moo jiitu man yàlla sama mer kon lépp lu ñuy def nañ si am xoli yërmande baax fexe lan jikko yu rafet ak fu mu doon nañ fexe lan ñu dugal fa yërmande moo xam daa ngay jàng moo xam ñu ngi lay jàngal moo xam si place liggéeykaay nga nekk moo xam si bu mu sëy nga nekk moo xam ak loo mënta doon fexeel yërmande mu jaar fa bu yërmande jaaree rek yow sa bopp di nga texe ba pare di nga am ma xam si yàlla yonent bi ba ko dofi toppee woon boo ko gaañ boo koo rey lu nekk gars yi def ko ko ah lan la eh, eh, eh, yàlla yónni jibril mu ne boo bëggoon sama jël maamte ne xeer yëpp màbb ko seen kaw mu ko déet bul def xëy na dañ maa xamut xooli yërmande bu am si xolam bu ko yàlla defal si boppam moo taxat bu ñu ñëpp delluwaat doon ay jullit yu baax bu noonu man mu sob mii la dama ko daan reyal ndaxte am na si yonent yu bari yoo xam ne dañ reylu seen nit ñi ngir la ñàkk a yàlla ñàkk topp yàlla moo tax ñu reylu leen waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu rey kenn bul toroxal kenn bul alagal kenn bàyyi xëy na bu ñu demee si kanam dinañ ma xam ana tey ñaata nit ñoo xam yonent bi sallallahu alayhi wa ñaata ñoo xam ne nekkuñ toon jullit ñoo tuub dugg si islam ngir yonent bi tuuram bi rek am na ñoo xam ne tuur bi rek dégg ko rek si lañ doxee tuub ngir lan yërmande bu mu amoon xam na mujjante li jamono naka mooy mel mm-hmm. kon su ko defee ñu jël yërmande dawalante ko suñu biir comme nuñ jëlee jàmm di ko dawalante suñu biir ndaxte lépp ñépp si lañ xëcc si biir yërmande yërmande boobu ñépp si lañ xëcc kon nañ fexe képp koo xam ne xooli iñaan mu si yow wala soxor mbaa sa xol bi xaw a dëgër fexeel oyof nga am xoli yërmande mun a yërëm julliti mun a nekk ak ñoom ndaxte boo amul xoli yërmande doo mun a dëkk ak julliti saa yu nekk de yaa ngee soxor saa yu nekk de yaa ngee iñaan kon nañ fexe delluwaat suñu xel si yàlla ñu xamaat ñun fan lañ bàyyi ko ak fuñ jëm fan la loolu noonu saa yu nekk saa yu ngi koy study rek maanaam duñ riir fekk nit ki mu ngi toog di xalaat si mbiri yàlla du dellu gannaaw fekk mu toog di si xalaat yàlla ma sant nangam moo ma tere nangam waaye léegi naka laay def il faut mu won la yoon bu nga xam ne foofu ngay jaar kon nañ feexe xam sabab bu tax yàlla wàcc ñu si ko àdduna bi fii ndaxte ba tey si yërmandem si lañ toog bés bu demee ba yërmande bi jeex rek àdduna jeex na kenn xëjatut fi mhm. waxtaan baa ngi noonu mhm. ah, jërëjëf ah, Oustaz ah, jërëjëf for that important sermon li nga wax fii am na am na solo torop dafa nekk loo xam ne it's very very vital and it's good for human life Oustaz fi wax yëpp am na solo yërmande ada nekk loo xam ne dafa am solo torop si doomi tak te suñu borom la commencé ci a suñu yonenté bi ñu wacc ko ci ñun ak a lepp lo ne ñu ka ko amee suñu livestock si moy hari bi nagi ak afasi dañu gis ne borom mbami, dañ dé toroxal sen mbami torop té lolu tamit dañu wara try ñu achieve ko waaw ah, ñu am yërmande si ñoom parce que ñoom tamit dañu amee bakken kon ni ñu ko amee yàlla daf ñu jox bakken ñu jox leen ñoom tamit bakken kon dañ war a try ñu am yërmande si ñoom ñu jàppale leen bu baax a baax jërëjëf yaa oustaz si sa time bi ah, di la wax jërëjëf saa yu nekk yàlla na yàlla jàppale si sa liggéey bi. time bi jeex na léegi ñu euh, ngi tàggatoo may wax suma caméraman bi Ousmane mbay thank you very much di ko gërëm saa yu nekk liggéeyam bi rafet na liggéey bi baax na macha allah yal na ko yàlla jàppale yàlla yokkal ko place ba yalla euh, setal loxo bi yàlla jàppale ko bu baax a baax suma éditeurs yi Sister Janet ak Aïcha di leen wax tamit ngeen jël tamit jërëjëf si seen time bi bi ngeen di jël di edit programme bi ngeen ko édité rek oustaz mu kontaan di leen wax jërëjëf si boobu Ah, suma boose mooy oncle Sirfo Dabo suma bro boo xam ne ma ko ak kenn man rek maa ko moom di ko gërëm di ko sant bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla jàppale ko si liggéey bi yàlla ah, jàppale ko si liggéey bi bu baax yàlla mm, yàlla sutura ko yàlla aar ko yàlla ah, gën ko yokkal yàlla jàppale ko bu baax a baax suñu boss bi tamit mu di oncle Ousmane Tounkara di ko wax ne thank you so much for your cooperation we are always behind you Thank you for your support. They were all followers of Echo TV International, especially the followers of Watani Islam. They la wax continue following the in the programming interesting Watani, i am solo di leen delluwaat suñu borom saa yu nekk di leen fi interesting topic you have suñ diine bi lañu waxtane ko ñu leen di wone continue follow me programme bi bima leen ko waxe rek ñu ngi bëgg sponsor sponsor will help us to grow jappale leen ngeen jappale ñu suñu programme bi anyone interested to sponsor you can call the numbers on the screen di baye yaa ustaas mu tàggatoo ak askan bi oh, waaw jeuf mariama bu baaxa baax si wax yu am solo yu nga wax noonu ndaxte ñun tamit lepp lo xamne ñu ko fe wax rek nekkul ne suñ bari wax la nekkul ne suñ man-man ndaxte ay xale yu nga xam ne dañuy jàngale rek ba tey ay taaliba lañ waaye yonent bi euh, suñ borom moom moo wax ne wal takun minkum ummatan yad'una an-nas maanaam na nekk si yéen ay nit yu nga xam ne dañuy wax si nit ñi lu dañuy digal nit ñi lu baax ñu tere leen du bon ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar kon ñu tam si waar boobu si lañ taxaw bu baax a baax di jaajëfal suñ président bi bu baax a baax moom mu nga xam ne sa yu nek ram ñe out ut nuñ fexé ñu ñu jangal suñu ndax té wax ju ñe wax ñi ñun tam dañay jàngalale suñu bop ñu xam tam ñun tam ëlëk fa la taxaw dégg ndax té mom lu def ni liggéey bu am solo la ngay dem si borom xam-xam di leen laaj li lan la ci yalla wax li lan la ci yalla nam ak lan la ci diine islam wax su ko defee ñu dañ melni man bari wax xamuñ daal su ko defee suma maas gi ñu mën a jàngat bu baax xam seen diine xam fan lañ féete suñu borom bu baax a baax kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax di sant ñëpp su nekkee ne am na lu ñaaw si kàddu gi nga xam ne man la waaye bu rafetee ngeen xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko defar wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ba next week as Eco TV International waxtaani islam incha allahu rabi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.